salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen ziarat bu baax a baax di leen joxaat seen wàccuwaay di jéggal waat bu bëri bëri baat bi daa a dee tey ñu ñëw seet si doomu ndimaak bi doomu ficelle bi muy kan muy Boy Maroon ginnaaw bi mu jugee si diggante mag Thierry Mbène mu jël drapeau ami collège Thiandoum tey ñu ñëw fekk ko fii nii xale bii moo nekk tey moom lañ seet si doomu Pikine bi doomu ndimaak bi doomu ficelle bi Boy Maroon tout capp lañ def waa delloo ziar bu ginnaaw ma sant yàlla julli si yoon bi di sama ñaar waajur maa ngi nuyu àdduna ndax tey àddunaa ma dar daru ma tey àddunaa ma dar di nuyu ñëpp di nuyu ñi nga xam ne sonn nañ ci combat bi yëpp képp ku sonn ci Boy Maron rek booy Maron mu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay waaw aw ma seen fay tey boo gisee tey génn bi rek nga xam ne tey Boy Maron tey li ko dar tey dafa bari tey su ma nee pikin tey kese rek tey damay juum tey li ma dar tey ëpp na Pikine waa dëkk ba ñëpp région boo gis rek tey am na benn nit boo xamante tey na foofu ñëw jàppale seen rakk seen doom tey ba yàlla suturaal ma kon aw ma seen fay maa ñu ñëpp waaw di ma seen leen jox seen wàccuwaay daal. da mel da nga waxoon da ngay samp da nga de sampoo jaaga. non samp bi moom moo ko waxoon man maa ne woon man ñaakuma fayda bay samp ak yow jaaga parce que man xale bu ndaw laa lu ma soxla dama koy jëli mu ne damay samp ak yow jaaga mane ne ko man du ma samp yow jaaga. parce que yóbbu ma samay supporters waaw maa koy nuy waat nag o passage tamit di ko wax ni làmb li làmb la quoi ah di ko encouragé bu baax a baax champion la ndaanaan la tey mbër bu mag boo gis tey mbër bu ndaw boo gis tey ci mbër bu mag la jaar ba yegg quoi di ko félicité métti na trop nag mais na muñ takkaat daal yi dem liggéey waat te xam ne sport la bu jeexee rek jeex na quoi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay sama grand la làmb la woon làmb la la woon rek lépp luñ ci defoon loo xamante ne tey jéggi na yoon ñu ngi koy jégaluwaat bu baax te waxoon ko ni làmb la rek bu jeexee jeex na ñu nekkaat ci leneen di ko boo bu amaatee combat yàlla na ko yàlla may ndam dañ doon jaay suñu bés rek di def promotion làmb ji waaye ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. ñu ngi si Alioune nag moom bii mooy sama septième combat sixième victoire benn défaite. waaw bi la X9 daanam la déggoo mu ñëw. non te yàlla na yéex instant yii déggaataguma ko nag. booy Maroon fan la jëm. booy Maroon fu mu jëm xam nañ ko booy Maroon ay naataangoom ba léegi bëreegul ak ñoom lii non non man waxoon naa la lii xuus jàll la rek xuus jàll la woon. kon yow ñan ñi ma soxla Thiat Daouda Fall mi bëri démb eh. na ñëw ñu bëri dafa war a neex man instant yii nii ma koy teel a wax tey damay teel a wax samay doléance tey nekk fi di bëree ñoo xamante ne làmb xamuñu leen wala dañoo tàdd ci làmb ñi làmb soxla laa soxla parce que tey ëpp ñu ma dara bu dee ginnaaw ëpp ñu ma ko bu dee fit ëpp ñu ko bu dee bëre bi ëpp ñu ko kon nag lan la léegi lu ñuy teggi nañ ñëw ñu bëre Thiat Daouda Fall Talfa Talfa men non man maa moom du làmb sax du làmb man góor a soog laa soxla góor a soog nijaayam góor a soog laa soxla boo gisee may laaj Talfa góor a soog laa soxla Talfa maa ngi moom du làmb Talfa maa moom sax waaye Talfa maa ngi moom waaye làmb bu neex la promoteur bu ma seet si woon tey tey tey dibiteer yi laay reeree eh. Talfa na ñëw ñu bëre Mor Kankang eh. ñoom ñëpp amuñu combat dañ ñëw ñu bëre waaw mais gars yi bu ñu ñëwee tey di maye chance ñoo xamante mooy loolu. dafa mel ni da ngaa si victoire rek si ñoo xam ne. gisuma ko taxaw ne jox leen ma diw. waaye man xale laa ci yoon laa nekk instant yi taluma kenn ku ma tardel instant yi nii li sama kanam laa soxla mais li sama ginnaaw weesu naa ko instant yi nii ñi ma war a bëril mooy ñi nga xam ne làmb xam na leen làmb mu ngi leen di coow. parce que damaa xam ne. ñooñu la làmb bu bëgg instant yi te làmb booy dem da xool ci ñi nga xam ne ñu ngi avancé nga ànd ak ñoom avancé mais boo xoolee ñi nga xam ne làmb fàtte na leen yow da ngay retard te sa làmb day yéex. waaw moo daan Fils sa Balla moo tax nag Fils de Balla ñu bàyyi ma kenn Fils de Balla na ñëw ñu bëre ndigal ndigal wallahi azim bu paree pare naa ndigal menn na ñëw ñu bëree. dafa faqas salu Pikine barki dem na ñëw na ñëwaat léegi ñu bëree. bu ñëwee fi nag duñ ci dal waaw fii xeer la benn nen du fi bondé quoi bis ñëwee ñu bëre ñoom ñëpp ay ñoom Ada Fass na ñëw ñu bëre Ada ma nga ne. moo naa ma Ada Fass day dara Ada Fass du ci dara soobu maan la mais man talfa maag bi laa gën a bëgg su ma gisoon. nga ne taxaw si talfa rek. parce que la dama ko fay sampaat. ma sàmbaat ko parcelle ñoom di xaaraat. bëgg naa pare naa amul komba combat ma combat na ñëw ñun dañu rëbb di sooy te wiiri wiiri jaari ndaari na. jax dëgg na ko yow jax dëgg na la. waaw wiiri wiiri jaari ndaari bu dawee bu dawee ren tamit déwén day ñëw. yow jax moo la nag su ma sañ su ma sañoon jax maa ngi lay ñaanaat combat bi maag Talfa loo ci mën nga def waaw maag moom dafa war a neex dafa war a neex dër bi la quoi. xalaa foog séeréer xalaa séeréer wen ndef na ci njof xalaa den waa gidma fop gidmat na den fop foog séeréer fop fogo mbey fogo ndun fop ma bega den fop dayana den yama a ndamta ɓiy den xane parce que xane mu boy moron retna no jom xane wagama lay ɓiy séeréer we a ndamta a ndamtaxam faal we a ndamtaxam nayit den kam mara mujj dama paax yam mi jegima leng te fe séeréer gimaama gim cosaan wo giyan nam roqtida no jom ɓuuɓ sax anda cosaan kam gim gim te ñoom a refa no ka lam a ah, lamanum waaw a refa ka andoona ah, kon a jega ka rek mooy loolu ka mbara parce que ɓiy den surtout fiisel mbadan mi kum xaajoorta a ndimaago ref kon koy ndimaak xane ka mbara ngaajoorta xam ndam xa ɓay xa ɗak i a parce que xane te weeke ndef yo ba in xane a ndefo a ɓeero no njom xane kon koy mu ta teg ina ye den xane ka mbara mbaat a tega in maaga yaam ka jega jaxlanaxama yaam o andanga père Gana Seras a miña bisa champion xe denuna ngar Ndiofane jana ref fi ka daawna ay 13 combat i ngaye gaan o gar wo xaye mbaata fi ke fi'oona xaye ref septième combat of six victoire bene xanaa promoteur ke pour dang bedlo ikiri wa ikiri Gana Seras ka tan taju waden fop njom ne tax taju waden parce que ande Gana Seras ne saka cuune mbita saka cuune it ane wote ken dongo tax taju wayin i te cuune maye te anda ino kay tagatelo i ndefero wa andona ye xane ka jeg na andona ye kay berno presque primaire ba collège ino andanga nango yibera andanga nango yo gana ne fola wala ko to kin xane alene garim waden on combat écrit na may wiin mayu wa andoona yee xane waage waɗan den combat yaam xar ka ref fa den na calel ka andoona yee il faut calel kaaga soti o ta soog o waɗan den combat kon meke xane école o université in meke te kuy jeg na ñoom xane ate ci'ina in ka laya ine xane we mo ci'e million na waagaam a fi ka taxna nu jego million kon koy ten fo xooɗum i njegee da ndaf dum ka xijana in chaque jour wax dëgg fa yàlla xane waagaam a lay xane ginaaw roog fa ten te ndimaak nga ƴega mbir fisel a njega mbir i wagaam o lay adna ne a njegatna mbir sereer ke njega mbir parce que xane im layanga ndimaak lay fisel xaƴaam sax a mayu ke bugaxama ka may mbuday sek tokoor ke mi formation um weeke moom fop ka mbugaam ka mbuganaam a den ali wiin weeke ali jege ka bukana combat ne sali wiin weeke a ngeɗa ngeɗo ñaal fo yeng kon waaga anda jegim David den fa mbasiis mbasiis loog looloogoy wax dëgg fa la a mbuga xam ganta mbug ta xam saaraar saake fop ka mbuga mbuur wiin a mbafta bo mbuur xana mbuurida parce que lingin a wene fop aarona in wene jegim ndafid den wa puut geexina den meeke kon waagaam lay boy o fate boy moron pikin donc boy boy moron xadina kene ref moron a ref mbino sereer a gen saate boy moron tay cent pour bi dafa mel ni da ngeen seen bopp tey. cent pour cent simple yi nag dañ leen di lëre de. waxoon naa la làmb ji ak lu metti metti metti du mbëru li simple ñun dañoo dañoo jàng lépp dañuy étudier lépp. si gis yéen loo xam ne xanaa du ma ko woon si yéen muy xeex. parce que dañoo foog ne mënuñu xeex te affaire bi moom du mun xeex affaire bi gën waaw gën a ñeme la rek gën a ñeme la rek parce que làmb ji moom métti woon na ci ay wax mais xamoon naa ne bu arbitre bi soufflé du métti ci man ndax xam naa li ma liggéey. xëy na nag ñu bari ñu gis baisse de poids te nekkul baisse de poids li ma liggéey ba attan sama bopp ba xam ne maa moom sama bopp. voilà non du loolu <laughs> du question loolu sax <laughs> baisse de poids bi sama kos bi mu jëlee combat bi xam na li mu war a liggéey ak man. wax dëgg fa yàlla xam na li war a liggéey ak man te tamit liggéey nañ ci bu baax a baax a baax moo tax tey làmb ji tey bu demoon ba quatre-vingt-dix minutes sax maa moom sama bopp. waaw man xam naa OFT boobu ma amoon ci man tey tey dama oyof ba xam ne tey man wax dëgg fa làmb ji bu demoon ba quatre-vingts minutes sax mënumaa sonn. le vingt-neuf. loolu dama koy bàyyi sama loxo gosu rek. ñi ñooy samay kilifa. ñi ñooy lépp. boo bëggee dégg. yee yee yeeweeku nañ yeeweeku nañ mais dañoo dañoo am ay kilifa dañoo dañoo dañoo am ay kilifa te tamit fépp fu ñu jaaroon dañ faa bëgg a jaaraat. tamit remercier leen parce que làmb dañ ko waaj ay weeri weer man mun naa ne mbër yëpp mbër yi bëri ci journée bi yëpp man maa ci gën a sonn xam moo tax ma gën cee maa njëkk a lekk avance moo tax ma gën cee te a jeexal xaalis weer yoo xamante ne compétir ma parce que am na ñoo xam ne ñu bëri am na ñu bëri ñoo xamante ne compétir nañ te man mënu ma ci woon compétir parce que làmb fu ma toll woon la xam naa fu ma mënut a yóbbu ci làmb te tey dama nekk sama ginnaaw entraîneur luñ ma digal loolu laay def buñ ma nee toogal lëlu ma toog lëlu ñu toog loo ma ma toog tamit di xaar compétition bi tamit na ma gaay xaar tamit nañ ma xaar rek bés bu ma paree tamit bu ñu ma yeewuwaatee pour ma compétir ma ñëwaat waa mais booy moroon instant yi nekkatul booy moroonu kese dafa nekk dama am ay kilifa yu nekk sama ginnaaw di santaat ñëpp ñi nga xam ne nag dañoo jàpp ci combat bi waaw di santaat ñi jàpp ci combat bu baax a baax combat bi nii dama cee am jàppale boo xamante ne wax dëgg fa la mun naa ne gis naa ci sama bopp ñëpp gis nañ ci seen bopp mais am na ñoo xamante ne ñëwuñu mooy autorités yi autorités yi nañuy gën a gëstu sonn nañ ñun mbër yu ndaw yi amuñu dara ci suñu làmb da ngay ba pare wallaay azim sa yaay bu la joxul nga ndékki doo ndékki te loolu dafa métti ci làmb mënuñu bu ñu soxlawee mu yomb ci ñoom ba pare ñun suñu leen soxlawee ñu ñuy daw autorité Pikine yi dañ ñëw dañ ñëw a a a sóoraale man mun man nag waa Pikine ñëpp laay wax de nañ gën a xam ni Pikine am na ah ñoom Karbala ñëpp mais xam nga ñuy tardeel mooy yeneen gox yi li ñu di jëndal ci ticket ñun duñ ñu ko jëndal ticket te xoolal tey li ma indi stade. laay walaay am na ñoo xam ne dugguñu am na ñoo xam ne dugguñu te loolu ñakk te loolu am na ñoo xam ne ñàkk jàppale moo tax quoi man tey Baye Fall yi wallaahi azim ñii ñoo kolo kolo seen i 2000 seen 3000 ba ticket yi matu wallaahi azim ak sama grand yu baax yoo xamante ne jàpp nañ ci mooy sugu assurance. su ko assurance jàpp na ci bu baax Pape Mbacke Pape Mbacke jàpp na ci Assane Wade Assane Wade jàpp na ci tike bu baax a baax a baax ah. ak Zal Zal secrétaire moom tamit jàpp na ci bu baax asan Thiam ah. Ala Dieng Assane Laye Mafia bi ñoom ñëpp jàpp nañ ci tike bi waa Sees ba ñoom ñii ama seen fay waa Chicago Indien ah. Mafia Zalone bi ñëpp waa Bopp Cora waa Curuba victoire bi nag victoire bi kenn laa may maam Ibrahima Mbacke ma maam Ibrahima Mbacke may naa ko victoire bi maam Khadim Mbacke may naa ko victoire bi Baye Atef Mbacke nag yal na fi yàgg te wér Mbacke Balla Aïssa dundal loo dundul dayul dundal ba ci kanam ak kanam ak kanam di ziar yeneen gars yëpp ñi ñi jàpp ci làmb ji yëpp nag maa ngi leen ziar làmb ji ñi jàpp dafa bëri gars yi waa Seras waa Seras aw ma seen fay yàpp yàpp bi tey ñoom def nañ ko ba nuñ ko war a defee yaa ma gën a xam jox ma xaalis bu bëri nag perzo aw ma sa jox na ma xaalis bu bari mhm. waa seex seex jox na ma xaalis bu bëri ah Malick Gakou ah ñoom ñëpp Malick Gakou mhm. dimbali na ma bu baax a baax ci combat bi ah ñëpp ñoo xamante ne tey su ma limee rek damay juma Assane Pono Assane Pono jàpp na ci toggukatu waañ bi xoolal tey waañ bi ñoom ñëpp dañ kaa dañ kaa def ba mu très bien wax dëgg fa la aw ma seen fay te chaque jour dañuy jàpp te xooluñ ci dara kon aw ma seen fay sama jigéen ñi ñëpp aw ma seen fay waaw sama mag yi nekk fii nii. kanji Bure waaw Bure caatu kaaku yàlla mbin bi ah moo aaye le 26 ans ah. maa ngi koy ñaanal ndam Kabila Kabila ak àll drapeau bi seen drapeau la booy mun naa ne bu laa muy desee une semaine nelawuñu wallahi azim comme ni mun naa ne yorel naa leen ak billahi wallahi daal une semaine gars yi dañuy dañuy ngir lan ngir ma am ndam kon tey dañ ma gën a yokku tey di santaat ñëpp ñi ma may baas yëpp Pa Omar aw ma fayam Mbor aw ma fayam waaye école de lutte Gana nag ñi ci jàpp ñëpp ñëpp jàpp nañ ci contact bi sama mag Ibou Senghor waa Gane Diofane yàlla na ko yàlla may combat ah ak sama coach bi Gana ak jabaram awa ah ñoom Ousmane Fall ñoom Ousmane Ndiaye ñoom Ousmane Ndiaye ñëpp ñoom Kor Dione suma ma limee rek damay jum équipe de lutte Gana bi yëpp ak sama mbokk yi fi teew yëpp alaaji mii maa ngi koy ñaanal jàmm tamit ku baax la saa yi ma amee combat da ciy sonn bu baax a baax te aw ma fayam kon maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm coloré bi mu sekk ak ñun na ñu ko yàlla jéem a defal ba dem fu mu nekk hôtel joor maa ngi koy sant bu baax a baax a baax hôtel Dior jàpp na ci combat bi bu baax waa mu Moustaph Biram Mbadaxun jàpp na ci combat bu baax a baax a baax a baax waa Diouroup juróom kenn desul ñëpp jàpp nañ ci combat waa saara waa saaraar waa saaraar jàpp nañ ci combat bi kon di santaat ñëpp Talfa na xam ne am na problème nag Talfa xamal ni bés boo tëddee dina law del yeewu waale Boy Maron ndax Boy Maron du sa mos a jour maa ngi sa kaw Talfa maa moom combat la instant yi moom kese laa bëgg kuñ ma munti indi avancé tamit Talfa laa soxla waaw